abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay tigil kasalada sidi baram أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام ala man la nabiya baad wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi irshida li jamilan zahiri wa batini bi tahiri ya maaxiyan kabairi bi jaahihi wa lammami ixwaani fillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk ñu bokk yàlla kii seen soppale ci yàlla Abdul Ahad moo desuwaat di leen nuyu di len ziyaar di leen tattagal di leen baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla boole ñu jégal mu mel ni bokkuñ bokk yàlla tey al yawma yawmul isnayni tey bisab altine la seize Chaban fan ak juróom benn ci baraxlu wii ñu nekk ci ñi nga xam ne lool lañ jàpp waaye di quinze di fukki fan ak juróom ci ñeneen ñi nga xam ne loolu lañ jàpp atum 1445 atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom hijriya ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi di lajir al février deux mille vingt quatre mu dëppoog ñaar fukki fan ak juróom benn ci mois de février bii ñu nekk atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent miladi isa ci juddu saydina isa alayhi bokk ñu bokk yàlla fukki fan ak juróom benn dafa bokk ci limuy yi fatt yi kon ñi am tey fukk juróom benn altine ji dafa fatt ci ñoom rafetut ci ñoom waaye nag ñi am fukk juróom moom rafet na ci ñoom altine ju nekk nag lañ ci gën a taamu mooy ku ci daloo eh, woor ko it maanaam eh, maanaam sunna la koor gi bu dajeeg lim bu fat manis na ko def waaye nag daloo bi ak yeneen yi su dajeeg lim bu fatt moom das koy wattandiku ñu am fukk juróom nag moom rafet na ci ñoom lépp luñ ci bëgg a def rek mën nañ koo def doaawul yow allahuma inni audu bika min fitnati nnaar wa azabi nnaar allahu akbar allahuma yow buur inni man day audu dina bika ci yow min fitnati nnaari ci fitnaay safara wa azabi nnaari ak mbugalam safara amin muy ñaan goo xam ne gu am solo la jullit bu nekk war na koy ñaan ndax kat ñaan mucc ci sawara ñaan musulu ci fitnaay sawara musulu ci euh, mbugalam safara loolu moom ku nekk war na di ko ñaan bu demee ci beneen ñaan boo xam ne ay alquran ma ngay wax rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati waqina azaban naar gis nga ko boobu moom waqina azaba naar la wax yow yàlla yàlla nga ñu fegal mbugalam safara ba tey alxuraan mi ngi wax naan xuu anfusukum wa ahlikum naara alxuraan mi ñuy wax ne fegal leen seen seen bopp ak seen ñoñ safara xuu anfusukum wa ahlikum naara allahu akbar fegal leen seen bopp safara waaye fegal ko seen ñoñ doomu aadama nan lay fegale boppam sawara fegal ko maanaam ay njabootam ak i nitam ak i ñoñam képp ku bokk ci moom nan la koy fegalee safara mooy nga fexe ba yow li la yàlla sant nga nekk ci lim la tere nga ba fegal nga sa bopp safara waaye nga fexe it ba sa njaboot ak sa ñoñ ñëpp nga leen di xiirtal ci ñuy jëfe ndigal di moytu tere di leen digal lu baax di leen tere lu bon yar leen ca teg leen ca ñu ne ca coow su ëllëgee nga fegal sa bopp safara fegal leen safara wa qina azaba naar xoo anfasukum wa ahlikum naara la alxuraan wax ndax kat sawara metti na métti goo xam ne tar na tar goo xamante ne bi lépp ku nekk lépp loo mën a def lépp loo xam ci wax walla ci jëf pour mucc ca ba yaboo nga def ko ndax kat sawar yi wax nañ ne juróom-ñaari safara la ca sawara wu ci nekk rekk tàngaay wax yal na ump ak jaam jahannama ma ci gën a jahim lu tàng la laga lu tàng la xotama lu tàng la hmm? dafa bëri lool tàng jër sawar yëpp tàng eh, te ku sawar wu ci nekk nag am na dëgëre ku ci nekk it am na jëf joo xam ne soo ko jëfee ba jóge fi ca sawara woo lañ lay tàbb comme sa degré bàkkaar ni mu toll rek degré sawar woowu ci lañ lay yóbbu kon nag nit ki war naa góor góorlu bu mucc ci safara safara nag dara du ca musle lu dul ginnaaw bu yàlla wéyee ci mbaaxam ak yërmandeem bu la yàlla santee nga def bu la teree nga bàyyi amul leneen loolu rekk moo ciy musle ginnaaw yërmande suñ borom moo tax yàlla ne ñu xuu anfusukum wa ahlikum naara fegal leen seen bopp sawara fegal ko seen ñoñ fegal leen seen bopp sawara fegal ko seen ñoñ di jëfe ndigal di bàyyi tere di xiirtal sa ñoñ ci jëfe ndigal bàyyi tere ngay leen di wax dëgg ca bañ di leen nax nekk ci lu la neex ba noppi bëgg mucc ci sawara aw jaar yoonu safara ba noppi bëgg mucc ci sawara mënta nekk ku bëgg mucc ci sawara dangay ngay yoon wa ca jëm dangay sori yoon wa ca jëm waaye yow tege ca yoon wa jëm ca safara di kondam kondam yi ba noppi bëgg mucc ci sawara wala bëgg ñu musal la ci safara loolu munta nekk ma ne ab dëkk ku fa bëgg a dem da ngay jaar ca yoon wa fa jëm ku fa bañ a dem dangay wan ginnaaw yoon wa fa jëm jëm feneen ku bëgg dem àjjana jaaral ci yoon wa fa jëm di kondam kondam bi boo keroog ngay tàbbi ajana ku bëgg a mucc safara wanal ginnaaw yoonu safara te tege ca yoonu àjjana waaye bëgg na maa dem àjjana wan ginnaaw yoonu àjjana bañ na maa dem safara ba noppi tege ca yoonu safara ah loolu gaa yi nekk te yàlla wax nañu xu anfusukum wa ahlikum naara de fegal leen seen bopp sawara ak seen ñooñ wa taqoo naar na ngeen ragal safara walaw bi shiqi tamra yonent saa sallam na fexe leen ba moytu safara ragal safara donte sax benn dageetu tàndarma ngeen di saraxe boole koog nag jëfe ndigal bàyyi tere boole koog di saraxe te boole kook jëfe ndigal bàyyi tere wax neex na lool waaye digg wax moo ko dàq waaw wax neex na lool waaye digg wax moo ko dàq man kat dëkk man kat place bee bëgguma faa dem dëkk bee bëggum faa dem ca jaar ca yoon wa booy àgg ca dëkk ba doo ko yëg waaw dëkk bee kat dañ fay duma dañ fay dóore dañ fay jàppe dañ fay tëje man de bëgg naa bëgg naa caa mucc bëgguma kenn dóor ma bëgguma kenn tëj ma bëgguma kenn fitnal ma ba noppi jaar ci yoon wa boo dugg ñu naan la nuus duma laa duma duma duma duma duma duma ba maar day taal di fitna laa fitna laa fitna ba maar day taal di tëj la ci bëgg a dem àjjana jaaral ci yoon wa ku bëgg mucc sawara won ko ginnaaw bëgg na maa dem àjjana te doo jëf lu la ci yóbbu bëgg na maa mucc ci sawara te doo def mukk liy tax mucc ci safara foo toll yaa ngi ànd iblis foo toll yaa ngi ànd ak ñoñ safara doo fa mën a mucc alquran yàlla nee na waquduha naas wal xijaara nee sawara la koy taal ëllëg mooy nit ñi ak xeer yi mooy nekk matt ma moo koy taal waquduha naasu wal xijaara alayha malaikatun xilaadun laa yasuuna laa ma amar wa yafalu ma yamar yan ci yàlla musal kon nit ki war na moytu sawara ay nit a koy taal de ak i xeer waquduha naasu wal ijaara ba noppi ay malaayika yu tal yu am doole am kattan nekk fa buñ la xasee ba na la nuus ci biir sawara dutoo génn yoola ay boldu yu rëy te ñoom kat du mooy ndigalal suñ boroom lu leen yàlla sant lool la ñuy def lu leen yàlla tere lool la ñuy bàyyi ay bokk yi nañu góor góorlu bu ñu yàlla digalee ñu def suñu kémtalaay kattan bu ñu teree ñu baax laa yukallifu laahu wusaha yàlla nee na teguma benn bakkan lu dut la ko lum attan lépp lu yàlla teg jaamam rek xam na ne loolu da ko attan xam na ne da ko attan laa yukallifu laahu nafsan illa ma ataaha yàlla tegu benn bakkan lu dul lam ko jox illa ma ataaha ba muy wax ca dépense kon mbokk yi nañu fegal suñu bopp sawara fegal ko suñu njaboot fegal ko suñu ñoñ ci lan ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah ci jëfe digle lu baax digle njekk ba noppi nekk ca sax ca saxal ci suñu njaboot ba keroog ñuy wujj suñu borom tabaraka wa taala mbokk yi yal yàlla boole defal loolu lépp kon mbokk yi ñaan ngaa ngoogu allahumma inni a'udhu bika min fitnati naari wa azabi naari yow yàlla maa lay ñaan nga musal ma ci fitnaay safara ak mbugalam safara allahumma amin ñi ngi ñëw léegi ci xadis bi xadisul yawm عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم bilkalimati min saqati llahi laa yulqi laha baalan yahwi biha jahannama rawahu alimamu albuxaari bokk ñu bokk yàlla jële nañ ci abi hurayra radiallahu taala mu jële ci yonent bi sallallahu ne yonent naka jàmbi day la yatakallamu dana wax bilkalimati ci baat ci baat min ridwanillahi ci ngërëmal suñ borom tabaraka wa taala laa yulqi laha baalan te kat baat boobe sax ba mu koy wax daanaka prêté prêté wu ci attention maanaam yëgu ko sax yar fawu allahu yàlla yëkkatil ko ca bihaa ca baat boobu darajaatin ay daraja waaye wa innal abda naka ab jaamit la yatakallamu dana wax bil kalimati ci ab baat min saqatillahi boo xam ne meram suñ borom ma nga ca laa yulqi laha baalan nga xam na sax maanaam bayiwu ko xel sànniwu ca xalaatam xalaatute bayiwu ko sax xel baat boobu bayiwu ko xel bam koy wax prêté li wala wax prêté wu prêté wu ci attention maanaam bàyyiwu ma ko sax xel maanaam wax na ko sax ci yëgu ko yahwi biha baat boobee maanaam mu tabbal ko nuural ko saxal ko fi jahannama ca safara hadis bi al imaamul Buxaari moo ko solo bokk yi muy hadis boo xam ne hadis bu neex la ci genn wàll gi waaye bu ragloy la ci beneen xaaj bi xaaj bu njëkk bi neex na torop waaye xaaj bu mujj bi raglu na torop xaaj bu njëkk bi mooy nit ki dana wax ab wax te bi koy wax sax daanaka wax boobu yëgu ko mu amee ci ngërëmal suñ borom tabaaraka wa taala maanaam da koo da koo xeeb daal maanaam wax bi defu ko muy dara yàlla gërëm ko ca yëkkatil ko ci ay daraja maanaam da koo wax wax boobu gërëm loo yàlla te moom ba koy wax sax yëgu ko prêter wuti attention yàlla yëkkatil ko ci ay daraja adduna ak àllaaxira waaye nit ki dana wax ab wax merloo ci yàlla ci wax boobu mu koy wax prêter wuti attention sax yëgu ko na da koo dugge woon kaf wala leneen maanaam wala reetaan loo nit ñi wala moom ba mu koy wax sax yëgul ne wax na ko ndekete wax boobu jural na ko musiba jural na ko meram suñ borom tabaraka wa taala ah, ba wax jooju tabbal ko safara wal iyaasu billah kon bokki nañuy setantal suñuy wax tey bay xel la ñuy wax yonent bi am na feneen fu muy wax ne nit ki dana wax benn baat jubluwu ci lu dul reetaanloo nit ñi baat boobe mu xalambaayu ci xuri safara juróom ñaar fukki newet allahu akbar xarifa juróom ñaar fukki newet juróom-ñaar fukki nawet juróom-ñaar fukki at nawet at la juróom-ñaar fukki nawet maanaam yow yaa ngi wax li ngay wax te waxoo ko lu loo nit ñi ngi ci jublu da nga jublu reetaan loo nit ñi rek yàlla merala ca ba tabbal la ca safara juróom-ñaari nawet kon mbokk yi nañuy xam li ñuy wax même bu ñuy wax luy reetaaloo nit ñi it na nekk dëgg na nekk dëgg bu ñuy kaf di wax luy reetaaloo nit ñi na nekk dëgg comme na nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu daa defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel na màggat ñëw na ci moom na ko ñaanal ma tàbbi àjjana yonent bi na ko màggat du tàbbi àjjana màggat du tàbbi àjjana màggat mi dem di jooy di jooy ñu ñëw ci yonent ko waaye yonent bi yow de màggen fi ñëwoon doon la ñaan lool nga ñaane ko ndax àjjana moom dama ngay jooy rek ndax ne na na ko màggat du dem àjjana mu ne woo leen ma ko woo leen ma ko mu ñëw mu ne soo déggee ma ne la màggat du dem àjjana maanaam àjjana kenn du fa tàbbi nekk màggat allahu akbar ma ngay kaf di ko di ko wax di ko tooñ te fekk la may kaf ak di ko tooñ dëgg la maanaam màggat du dem àjjana maanaam àjjana kenn du fa dugg kenn du fa tabbi di màggat yonent na ko jubluwuma ci ne comme yow ni ko jàppee ne ko doon màggat rek soo deexee doo dem àjjana déedéet waaye dama ci jublu ne mm, ëllëg màggat du dugg àjjana sooy dugg àjjana boo dee góor yàlla da lay ba sa digg doole nga nekk waxambaane mu mat sëkk taaru lool rafet lool doo ko tàbbi àjjana soo dee jigéen nit kasaalika naka noonu yàlla dalay def ngay nekk xale woroban atroba nekk jànq tàbbi àjjana bokk ca uuru in ya allahu akbar loolu la yonent bi salaa waxoon màggal ma moo tax yow koy booy kaf ak loo man di kafe na nekk dëgg waaye di kaf di fen di kaf di rambaaj di kaf di yàq di kaf di jaxase yonent bi nee képp kuy def loolu danga nga xalambaayu ci kuri safara juróom-ñaari nawet moo tax mu ne nit ki dana wax benn wax ci jubluwu ci sax wax boobu yëgu ko sax maanaam mu amee ci ngërëmal suñ boroom ba yàlla yëkkatil ko ay daraja maanaam prêté wut sax ca wax jooju attention waaye wax ja wax ju baax la wax ju jub la wax ju ju ju tee la ju dal la wax ju yàlla gërëm la yàlla gërëm ko yëkkatil ko ca ay daraja adduna ak alaxira waaye nit ki dana wax benn baat boo xamante ne bi bam koy wax sax prêté wut ca attention bàyyiwu ko sax xel Hmm? mu jural ko tabbi safara ba faw kon bokki nañuy bàyyi xel li ñuy li ñuy wax te suñu borom wax ne ci alquran ni ñu baada auzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ca suratu qaaf qaaf wal qur'anil majid boo demee danga ko fekk sama boroom subhaanahu wa taala nee na maa yalfizu min qawlin amul kenn kuy wax wax benn baat benn lafs baat amul kenn kuy kaddu ak kaddu kenn kuy wax wax ilaa ladayhi lu na nekk na fa moom raqibut mala raqibun malaaka moomu ñuy wax raqib wa atidun ak malaaka moomu ñuy wax atid ilaa ladayhi raqibun atidun amul kenn kuy wax wax walla ngay kaddu kaddu wala ngay addu addu lu dul ne raqib mu ngi ci sa mbaggum ndajoor di la diglu atit mi ngi ci sa mbaggum càmmooñ di la diglu kon nag attention sooy wax waxal lu baax sooy kaf kafeel kaf gu baax na nekk dëgg waaye bëgg ni ñi ree ba tax ngay kàcc di nar di fen di wax ay xuraafaat di wax loo xamante ne bi yàlla bugg ko wax ju ñaaw la dana la jural nga tab bi ci safara juróom-ñaari nawet wala nga sax fa wala yaasubillah daan ci yàlla musal moo tax nit ki toujours bala ngay wax settantal ko Seydina Abu Bakar radiallahu taala anhu zu zitqin wal wafa rafiqu nabiyal mustafa xaara an sang bu tedd boobu saxaabi bu tedd boobu xalifaab yonente boobu premier xalif di yonent sallallahu alayhi wa sallam la daa jël di ko dugal ci gémmiñ gi moom ku noppi woon la balaa wax rekk wax daa jot te xam na fi mu koy waxe xam na ni mu koy waxe su waree wax day bàyyi xeer wi ci gémmiñ gi di xalaat di xalaat di xalaat ba xam ne lii muy wax ngërëmal yàlla ci nekk ngërëmal yonent bi lii muy wax dëppoo naag alxuraan ak hadis mu yàbbi xeer wa wax la mu war a wax daldi di noppi jëlaat xeer wa dugal ci gémmiñ ga moom la yonent saasam di wax naan man kaana yuminu billahi wal yawmi al axar fal yaqul xayran aw li yasmut abi moom noonu la ko daa jëfandikoo daa jël xeer di ko dugal ci gémmiñ gi foo ko fekk day noppi ba mujj yàgg sax buy waxe yow day am xet guy génne ci gémmiñ gi ndekete noppi gu metti gi ak ragal yàlla gi moo lakk res wi ba muy xeeñ resu eh, resuñ wàjji resuñ lakk allahu akbar ndax ragal yàlla ragala wax loo xam ne waru kaa wax dadaa bocc làmmiñ wi di ko dóor del wax loo war a wax allahu akbar chettt sahabatul kiram noonu lañ meloon ci ragal yàlla yonent bi nee na li ëpp ci liy tabbal nit ñi safara al yukbu naas li ëpp ci liy tabbal nit ñi safara ëllëg nee na mi ngi li nga xam ne moom lañ góobee ci seen làmmiñ yi muy li ñuy wax ci seen làmmiñ yi ca nekku dëgg di xas gor yi di jëw di rambaaj hmm, di wax loo wër wax di dëkkal nit ñi fun dëkkut di teg ci dere gor yi lu ñaaw di leen kas di leen jëw foo toll képp ku nekk ci lii boo dee safara nga jëm alquran nee nañu ay yuxibu ahadakum an yakula lahma aqihi mayitan fa karihtumu wa taqullah ay waay waay bàyyi leen jëw alxuraan nee na koo jëw rek lekk nga ko ndax kenn ci yéen mbokkam bëgg na mbokkam dee au lieu mu dem suule ko ca armeel ya mu tiim ko di ko dagg di lekk koo jëw rek lekk nga ko ca loolu la cay firnde nday Aïcha toog naa yonent bi bis am na yaay boo xam ne loola wax am na yoo xam ne soxna Fatima li ñuy wax mais nday Aïcha man bi ma jàng ndey Aïcha la toog na bis ak yonent bi sallallahu alayhi wa benn jigéen romb ko sol euh, ab robb maanaam sol yére waaye yére ba dafa am ay mbicc mbicc yee dafa gudd bay buubu mu ne mu ne ko yow day sa yére bi mbicc rafet na waaye mbicc yi daa gudd mbicc yi daa gudd fekk boobu yonent bi la toog na kee yére yéreem bi mbicc yi dafa gudd yonent bi ne ko ndey Aysa luujul mu dugal baaraamam daa di luuju bi luujoo lumboo deret jóge ci gémmiñ gi wadd ci suuf bi mu waddee ci suuf yonent bi na ko giññaa ci ka nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom bo reesoon ci sa biir bi dumala jariñ dara ci suñ borom tabaraka wa taala waaw mbokk yi ñun fu jëm ñun nga xam ne suñ xëyee ci deri nit ñi lañuy ñuy nekk di ngañ ngañi di ngañ ngañi di ngañ ngañi rawatina suñ bokk jigéen di jëw guddi di jëw bëccëg foo toog yaa ngi jëw kon ñaata lumbi derat lañ wan na ñaata lumbi dara lañ lekk kon jëwkat yi ay lekkati nit lañ ma ne dëmm yu mag yi ñooy jëwkat yi bëri na ku ñuy wax ne diw dëmm la ndekete am na ñu ko gën a nekk dëmm fuuf ñoo xam ne fuñ toll ñu ngay lekk deret ñu ngay lekk yàpp nit ñi muy jëwkat yi mbokk yi nañ bàyyi jëw mbokk yi nañ bàyyi jëw nañ bàyyi jëw jëw sa moroomam jullit jëw sa mbokkam jullit jëw sa mbokk walla nga di ko xas wala nga di ko rambaaje mbokk yi nañ ko ba mbokk yi waxuuloo li naasi xusnan la yàlla wax yàlla nee na dee wax ci nit ñi lu rafet wa xuulu xawlan sadida yàlla nee na dee wax wax ju baax ju jub ay bokki loo wax ëllëg di nga ko waxaat nañuy xool la ñuy wax di moytu jëw allahu akbar Seydina Omar bun Xataab dafa romb benn shaab benn waxambaane ne ko yaa shaabu iza wuqiita charra salaasa faqad wuqiita charra kulluhu na ko laq-laqika wa qab-qabika wa zab-zabika na ko yow day soo fexee yow waxambaane bi day yow xale bi soo muccee ci ñetti xay yii mucc nga ci ay lépp ba ca njëkk mu na ko laq-laqika sa làmmiñ moo gën a garaaw ak a garaaw jëw làmmiñ gis nga làmmiñ dafa garaaw a garaaw a ba yàlla ci biir la ko dugal ba noppi sàkkete ko ko ak i bëñ ba noppi tegaat ci ay tuñ ndax lan garaaw ga làmmiñ garaaw mooy tas diggante ndey ak doom di tas diggante doom ak baay di tas diggante soxna ak boroom këram di tas dëkk di tas kër di tasam réew di tas àdduna làmmiñ wu bon wa nag moom a tax di wax waaye wu baax wa nag mooy defar kon nañ fexe ba mu baax di defar te bañ di yàq sidna Omar radiallahu taala wax waa ji xale bi na ko soo fexee ba mucc ci yett yii de mucc nga ci yépp ay laq-laqika sa làmmiñ fexeel ba mucc ci wa xab-xabika sa biir fexeel ba bu ci def dara lu lewut wa zabzabika ak sa pëy mi sa awra bi boo dee góor fexeel ba bu ko dugal fu lewut boo dee jigéen fexeel ba bu ko jox ku sa boroom kër mu ne ko yett yi soo ci muccee mucc nga ci mboolem ayu adduna yi làmmiñ biir awra muy pëy nga sàmm sa làmmiñ ba doo ci wax loo wërta wax nga di ci tudd yàlla di ci jàng alxuraan di ci wax lu baax di ci di di ci jubale di ci defare bañ di ci jëw di ci rambaaje di ci yàq ay diggante di ci jaxase di ci kàcc di ci nar sa biir biir nga fex ba bu ci dugal lu xaraam bu lekk lu xaraam bu lekk riba waaye sa pëy mi nga téye ko ne la sa soxna doy yow ku góor ki soo amut soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la dëkkale koor deel woor ndax dina la dimbale soo amee soxna waaye yemal ci soxna ca bay bi soxna ay yi ngay ngay nekkal ak doomi jàmbur yi yaa ngi yaa yaa ngi ànd soxna ay jàmbur yi di njaaloo te bëggoo ko ànd sa soxna njaaloo ngay jaaloo doomi jàmbur yi ca buggoo ko njaaloog sa doom ngay jaaloog yaayi jàmbur yi ca buggoo ko njaaloog sa yaay hmm? wala ngay jaayoo bàyyi jàmbur ci buggoo ko sa baay hmm? mbokk yi nañ seetaan lii li ngay def doomu jàmbur yi buggoo ko def sa doom li ngay def soxnaay jàmbur yi buggoo ko def sa soxna hmm? li ngay def yaay jàmbur yi buggoo ko def noonu ngir baal ma ci baat bi ci kàddu yi waaye noonu rek laa ko mën a waxee hmm? lu nekk danga koy natt ci sa bopp bala nga koo def yonent bi sallallahu alayhi am na waaj ñëwoon ci na ko dama bëgg nga jox ma ndigal may njaaloo mun ne ko ndax bëgg nga koo def sa waajur mu ne ko déedéet mun ne ko sa doom mu ne ko déedéet mun ne ko monta ñi ngi ko bëgg a defal day ay yaayi jàmbur lañ ay waajuri jàmbur lañ ay doomi jàmbur lañ mu ne ko bis ni ko tey banaa ko allahu akbar bokk yi moo tax si naa mar wax xale bi ne ko soo muccee ci yett yi mucc nga ci mboolem ay adduna yi gis nga adduna feebar yi ngeen di gis feebar yi nga xam ne du wér ba mukk nga gis nit ku xëy xëy rek feebar du wér mukk li ci bëri njaaloo koy indi lu ci bëri njaaloo koy indi ñàkk a maandu moo koy indi waaye bokk yi soo maandoo dëgg dëgg dëggi maandu yenn feebar yi du la dal de léeg-léeg gis ku jékki-jékki rek xëy tële mënutu tus lu ko waral daa maanduwut daa maanduwut ndax dafa laal koo xam dafa laal loo xam ne waru koo laal dafa laal koo xam ne waru koo laal dafa dugal sàkkaraam foo xam ne waru ko faa dugal mu dee sàkkara ba dee mu ànd ak feebar yu yu metti ba ngir dundam nag duutu ko du du sàkkara ba moom day yàqu am na ñoo xam ne saa soo laalee seen alal moom yàqu nga te xàmmewoo leen ci nit ñi kon moytul bokki bokki suñu borom mi ñuy wax ci alquran ne wala taqfu maa laysa lakk bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaika anhu mas'ula suratu israhi yàlla sama boroom subhanahu wa taala nee na wala taqfu bul xencu bul fuuglu bul yurndu bul gëstu maa laysa làkk bii ilmun loo xam ne amoo ca xam di wax loo xam ne xamoo ca dara di nettali loo xam ne xamoo ca dara di kàcc di nar di dugg ci loo xam ne su yoon nekku ci di waxti ci nit ki loo xam ne xamuloo ko dara yàlla nee na bu ko def wattu ko ndax kat inna samaa naka digg wal basara ak gis wal fuaada ak xol yi wal fuaada ak sa xol bi kullu ulaayka kaana anu masula yàlla nee na ñii ñëpp ëllëg dama leen di laaj sa dégg gi danaa ko laaj na ko yow ci àdduna loo doon diglu ndax alxuraan nga doon déglu ndax waaraatikat ya daa waara ngay diglu lu baax nga daa déglu wala yow loo doon déglu dégg lay laaj laaju la yow dégg gi moom lay waxal te su boobaa la nga doon déglu loolu la koy wax wal basar ak sa gis bi yow gis bi sa bët yi ëllëg yàlla da koy laaj lim nekkoon ci àdduna di ko xool lan la wal fuada sa xol bi pas-pas la nga ca daa fas ak la nga ca daa yéene lépp suñ borom tabaraka wa dan la ko laaj yàlla neen kullu ulaayika mboolem gaa yi ma la ma la tuddal nii kaana masulan des na leen laaj kaana anhu masula yàlla dafa leen di laaj ëllëg kon nag bul ubbi sa di ko yoon di di di di di di di xool la wërta xool di diglu loo wërta diglu di yëddu ay nit di wax loo wërta wax ci salaam ah, yi di iñaan di soxor hmm, wattandik ko di njistal mboolem jikkooy xol yi moytu ko ndax kat yi yàlla nee na sa dégg gi dama la koy laaj ëllëg dégg gi lay laaj de yow du la laaj mais dégg gi lay laaj cër yi sa cër yi la yàllay laaj benn par benn loxo bi loo daa def tànk bi dégg gi nopp bët yi lamiñ wi ba sa xol bi yàlla du bàyyi dara te lim lay laaj kat li gën a yéeme moom mool ko gën a xam te ñoom ñoom ñi muy laaj dëgg rek la ñuy wax kon bokk yi nañ wattandiku alquran nee nañu wala yaqtab baxdukum baada waay waay waay waay waay lenn ci yéen buñ jëw lenn ci ñenn bu kenn jëw ci yéen kenn bu kenn jëw ci yéen kenn la ngay toog di ko jëwee sa moroom di def ko muy aw waxtaan waaye jële sa téere alxuraan bi nga jàng jële sa kurus bi nga wirda demal nga liggéey yi demal nga nekk ci leneen moo gën nga nekk ci deri jàmbur yi di ngañ ngañ rek Yunus alayhi salaam dafa ñëw ci benn waaye na ko dénk ma baat boo xam ne dafay dajale lépp yonent bi ne ko xul amantu su mastaqim waxal na gëm naa soo noppee nga ne coow ci yoon wu amantu su mastaqim waxal gëm naa soo noppee tege ci yoon wa ne coow allahu akbar bokk ñu bokk muy ñaari baat yu dajale lépp waaj daa ñëw ci yonent na ko damaa bëgg nga waxal ma baat boo xamante ni bii lu gàtt lay doon wax joo xam ne ju gàtt lay doon te day ëmb lépp yonent bi amantu waxal gëm naa su mastaqim topp nga jub kocc inna lazina qaalu rabbuna allah summa tete tatanazzalu alayhim almalaika alla taqaafuu wala tazanu wa abshiru biljannati lati kuntum tuadun allahu akbar yonent bi ne ko waxal amantu rek gëm naa su mastaqim topp nga jub al istiqaama ak njub ak njub ihdina sirat al mustaqim ci la lépp nekk ak njub gëm yàlla ak jub ci la lépp nekk moo dajale adduna moo dajale alaxira lépp lu yiwu adduna moo ko dajale lépp lu yiwu alaxira moo ko dajale amantu su mastaqim qul amantu su mastaqim waxal gëm naa soo noppee nga jub moo tax gëm yàlla ak njub moo dajale lépp njub moo tax ñuy julli bëgg jub moo tax ñuy julli bëgg a jub moo tax ñuy woor bëgg a mooy tax ñuy dem màkka jub mooy lan mooy mbaax bëgg julli bëgg a baax a tax ñuy woor hmm? ngir bu ëllëgee nga texe moo tax ngay ngay ngay ngay aj màkka moo tax ngay woor moo tax ngay nett asaka moo tax ngay def lépp kon mu ngi ci al istixaama ak njub ci la lépp nekk moo tax képp ko xam ne njub googu moom dalaa sori nga sori ko yow lépp luy ayu adduna ak alaxira moom nga boole moom nga dajale waaye ki gëm yàlla ba noppi jub tege ca yoonoo njub mooy li la yàlla sant nga nekk ci li mu tere nga bàyyi ko kooku moo dajale yiwu adduna ak yiwu àllaaxira bokki yàlla na ko yàlla def ci yéen def ko ci ñun def ko ci mbooleem jullit ñi ndax loolu rek moo itteel bokki suñu boroom ca suratul ankabut suñ fa demee baada auzu billahi min shaytani rajim bismillahi rahmani rahim nee na walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna allaha la maa almuhsinin ca sóotu ankabut yàlla nee na wallazina gaa ña nga xam ne jaahadu ñoom da ña ngay góorgóorlu ñoom da ña ngay jihaar ñoom da ña ngay farfarlu ña ngay farlu ña ngay farlu ci lu baax di góorgóorlu ci lu baax di jihaar ak seen bakkan di xeexal yàlla ak ab yónnanteem di di di di di dimbale yàlla ak di dimbale lislaam sax ci ndigal moytu tere yàlla nee na ñooña la nahdiyannahum danaa leen jubal subulanaa ci suñu yoon suñu yoon yu jub yi ci laa leen di teg subulanaa yoon yi nga xam ne mooy yoonu mbaax yoonu njub yoonu ragal yàlla yoonu euh, mucc yoonu ajjana yoonu nangam ba mbaax yépp jeex yàlla nee na sama gaañooñu dinaa leen jubale ci mbooleem mbaax yi bañ am mbaax texe adduna texe alaxira allahu akbar wa anna allaha la maal muhsinina yàlla nee na maag way rafetal yi ñoo ànd yàlla nee na man ñiy rafetal laa àndal kon yow mi nga xam ne da ngaa bocc saw lammiñ doo rafetal di bonal di jëw di xasta di ramaaje toppal yàlla nee na ànduma ak yow yow mi xam ne dangaa jubadi yàlla nee yàlla nee na yow yàlla nee na man way rafetal yi laay àndal ñiy wax lu baax di def lu baax di rafetal ci bokk gi ci dëkkandoo yi ci lislaam ji ci diine ji ci lu baax yàlla nee na ñooñu laa àndal waaye kuy yàq di rambaaje di jaxase di tisaare yàlla nee na yow soril ànduma ak yow mbokk yi kon nañ góorgóorlu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na aksaru nnaasi xataaya yowmal qiyaama yowmal qiyaamati aksuruhum qawdan fil baatili allahu akbar yonent bi neen aksaru nnaasi xataaya ñi gën a ay bakkaar ay bon bon ay ñaawteef yowmal qiyaamati ci nit ñi ñu ne ko ah mu ne aksaruhum mooy ñi gën a bëri xawdan lu ñuy xuus fil baatili ci neen allahu akbar mbokk yi yonent bi sallallahu nee na ñi gën a bëri bàkkaar ñi gën a bëri ñaawteef ñi gën a bari ay bon bon ëllëg yawmal qiyaam mooy ñi ngi ñi gën a bari lu ñuy xuus ci ay caaxaan caaxaan rek foo rek ci foo ngay xëy ci foo ngay gont ci di xuus ci foo di caaxaan ci foo yi allahu akbar alquran nee na maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nutimu almiskin wa kunna naquudu maa alqaa'idina wa kunna nukaddibu bi yawmi din ata ataana alyaqin fa ma tanfaum shafaatu shaafiin allahu akbar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñi ëpp bàkkaar ñi ëpp ay bon bon ñi ëpp ay ñaawteef ëllëg mooy ñi ëpp li ñuy xuus ci nit ñi ci ay caaxaan ak i fox allahu akbar yal nañ ci yàlla musal musal leen ci bokk yi xaala sayidna isa alayhi salaam sayidna isa nee na di yónnante di doomu mariam isa bnu mariam alayhi salaatu wassalaam nee na laa tuksiru alkalaama bi geyri zikrillah fa yuqasi quluubakum fa inna alqalba alqaasi baidun min allahi allahu akbar diglu leen wax Seydina Isa ji Seydina Isa nee na laa tuksiru alkalaama waay waay bu leen bëri ay wax bi geyri zikrillah ci lu dul ngeen di tudd yàlla koo xam ne foo yaa ngi wejajaji mel ni picc yaa ngi mbelalali foo toll yaa ngi wax ci ngay wax daray dara lu am njëriñ nekku ci ay caaxaani ko foo rekk ngay wax si naa Isaa nee na bu leen def loolu bu leen bëri wax bi xëyri zikrillaay ci lu dul ngeen di tudd yàlla nee na wax ji bari daal fa mu baaxee mooy tudd yàlla fa mu baaxee mooy jàngal xuraan fa mu baaxee mooy di julli fa mu baaxee mooy di di def di di wax lu baax waaye su génnee loolu rek amatul njëriñ si naa Isaa ne nag bu leen bëri wax ci lu dul tudd yàlla ndax nee na fa yu xasi xuloobakum ndax nee na wax wax ju bëri ci lu dul tudd yàlla day wowal xol nee na day wowal xol day wowal seen xol yi fa inna al qalba al qaasi nee na xol bu wow na xol ba nga xam ne dafa wow baidun min allahi dafay sori yàlla allahu akbar seydina Iisaa mu ne alayhi salaam bu leen di bëri wax ci lu dul tudd yàlla ndax wax ju bëri ci lu dul tudd yàlla day wowal ab xol te nee na xol bu wow dafay sori suñ borom tabaraka wa taala allahu akbar te ku sori yàlla koy jege iblis ku jege iblis foo jëm safara yaag moom wala yaasu billah yan ci yàlla musal kon mbokk yi teg leen seen baaram foofu ba suba ci waxtu wi ku doon leeral def ak yéen waxtaan wi seen soppale ci yàlla Abdoul Ahad aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa sairil muminin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu baal leen ñu xaq jërë ngeen jëf abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay digil kese la dem sidi baram